Amar defe naa kii ngay di gis jàkkaarloog moom defe naa ne kenn du ko laajte ndax li tax mooy buñ ne di Jaxate xel yëpp day dem ci Thiès buñ ne di Jaxate xel yi day dem ci Youssou Ndour ndax loolu la yàlla dogal yàllaa leen boole muy ànd bu yàgg defe naa itam làmbi Sénégal wala développement Sénégal moom lu bëri lu mu ciy def rawatina làmb mu woote le 10 avril ca Thiès diggante Ousmane Gandigal ak ka nga xam ne ni mooy saafi jee mu saf xorom ma ca Thiès Sidi Diakhaté bu buñ ko fekkee fii fas yéene laaj ko ci bés boobu fu mu ci toll ak nu mu koy préparé ak nu mu gisa làmb ju ubbi ji tonton Sidi comme ni mu koy faral di wax ndax sama tonton la ndax daa baax trop Sidi maa ngi lay nuyu di la ziar tonton. waaw Babacar maa ngi lay gërëm di la santaat di nuyu waa Equivox TV. di leen wax ni vraiment liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy parce que yow professionnel nga d'ailleurs damay gis ni suñu làmb yu bari suñ ko soxlaa ci yenn télé yi ci yow la ñuy ñëw pour jël euh, li nga xam ne mooy archive yi donc aussi nga yàlla yàlla boole ñu depuis des années saa wu may tëgg su làmb nga ñëw vraiment fekke si ko ci cees kaay ak fu ma mënti dem Kaolack ak fu ne ànd nañ fa donc mu doon lu sedd suma xol donc tey jii soo ànd ak waa Equivox ni ñëw tey jii war ñu war a def fas yéene def waxtaan wu am solo loolu dama ci daal di kontaan di la wax ne di Diakhaté dafa war a def euh, li nga xam ne mooy ouverture saison euh, ci samedi bi nga xam ne mooy le 10 avril ci hippodrome El Hadji Ndiaw Macodou Diop bu cees muy ex champ de course donc ci diggante Ousmane gandigaal koo xam ne kenn dootu ko présenté si ak Safi Dieng bi nga xam ne mooy waree Madina Fall ci écurie Omar Diko donc mu doon journée boo xam ne journée bu mag lay doon jël dem muy xale boo xam ne taseet da dëkk mais def ay preuve am war a bëre ak ki nga xam ni moom mooy Ceek junior bu kilomètre cinquante mu am fa dix combats drapeau bi ma tudde ko saxarit sa doomu ndey Mamadou Ndoye Bane bu Mamadou Ndoye Bane bu groupe Futur Média parce que daaw dama ko waxoon ni ko Ndoye Bane vraiment dinaa la delloowaat njukkal ci li ngay def lépp parce que toujours moom dañu day ko xam ne kenn la ci man ba pare léegi diggante Thiès ak Pire ku nekk xam ni benn la far daaw mbas mi tax bi ñu tëggee ñaar ba ñett journée rek affaire bi arrêté léegi nag ren ji ma ni kon dama koy fas yéene ubbee suma saison donc may wax nit ñëpp maa ngi leen di woo àllarba le 31 muy mercredi bi donc à partir de 17h ci li nga de xam ni mooy face à face bu mag bi ñuy dajeek presse bi yëpp. yow nag yàlla def na at mu jot suñuy tëgg suñu làmb da nga ciy ñëw moo tax bii fas yéene naa aussi defaat la invité pour nga ñëwaat aussi ñu àndaat bokk liggéey bi. di la wax na nag bis boobu li muy rëy rëy rëy sa xarit sa doomi ndey Ousmane Noël Dieng moom laa def invité de marque moom. ak képp koo xam ne tey jii yaa ngi yore mouvement boo xam ne day wuyoo ci turu Ousmane Noël Dieng ñu war a def délégation mag jógee Kaolack jógee un peu partout à travers le Sénégal sous la direction de monsieur Dieng euh, euh, Farba donc pour ñu ñëw pour fekk suñu Thiès ñu yendoondoo fa àndandoo dem foofu loolu lépp pour delloo njukkal ki nga xam ni mooy Ousmane Noël Dieng ci wàllu social mi def ci Sénégal mais surtout ci yëg ak faalem parce que du romb mukk Thiès te jàddul yendu sama kër ñu toog waxtaan looloo tax ma koy wax jërëjëf Ousmane Noël tey mu mel ni macha allah yaa ngi lo yokk lambi Sénégal waaye rawatina région bi nga xam ne moom mooy Thiès nga xam ne fa nga dëkk parce que olof na ku yokkul yaa wàññi te defe naa Ousmane Gandigal ak Safi Dieng ku ko tëgg jagleel ko Ndoye Bane Ndoye baan nekk koo xam ne tamit la waay waxadi waxadi ku ne xam na ne yokku na li mu ne muy groupe Futurs Médias ba mu ne yokku na fa dara waaye tamit dëkkam ba mu ne muy Pire yokku na fa dara Ndoye baan li tax nga koy delloo njukkal est-ce que mën nga ko gën a leeral. déjà li nga xam ni moom lay yeete ci biir réew mi ku nekk gis aussi wàllu social boo demoon tey jii pir ambulance yi ceeb bi dëwlin ji suukar si saabu yi nit koo xam ne am nga fa jafe-jafe lu mu man mi ngi dem wuti ay moyens ci ay partenaires am di la ko fa defal donc ñun ñu dëkk ci biir région bi gis nañu liggéey ndoy Bane te Ndoye Bane yemalewu ko foofu rek ba pare aussi xoolee ci wàllu wàllu média li nga xam ne aussi Ndoye Bane guddeeg bëccëg mi ngi koy def donc mu nekk loo xam ne lu am solo la Ndoye Bane du nelaw guddi du nelaw bëccëg xoolal ci wàllu mbas wi à travers le monde entier l'Afrique la Sénégal ñëpp di seetaan Ndoye Bane ndax jóg yi muy jóg di ànd ak aussi euh, euh, policiers yi donc di di di di wan nit ñi li xew guddi gi donc ba bët set jot bu xëyee aussi demaat ci télé bi aussi dafa fa liggéeyam donc bu 11h mu demaat defiwaat wareef donc mu doon loo xam ni vraiment nekk na koo xam ni war nañ ko waxaat jërëjëf looloo waral man da di dama jiitu rek pour wax ko jërëjëf mais Sénégal gépp ci suma tur la ñu jóg di ko wax jërëjëf moo tax presse bi yëpp ay jóg incha allah pour ñu delloo njukkal bis boobu Ndoye baan xam naa ni vraiment Sénégal dinañ jóg gunge ko ci loolu daal. ba tey su la laajee fa fi may jaxal ak yow rek mu ku ne xam ne da nga tëgg làmb ju rëy façon ko yéene def mbuur daaw mbas mi ñëw muy Gambien ak nga xam ne moom mooy assurance comment boobu foo ci toll. Gambien assurance ku nekk jël nga sa avance donc ma leen di invité bis boobu day di nga am chance ñoom avant loolu sax yow interviewé leen ba pare bis boobu en direct di nga waxtaan ak ñoom parce que damay def seen face à face. bu présenté leen public bi yëpp ba ñu xam ni bu ñu wooree rek bu soobee yàlla bu ñu naanee ndox rek buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu tëgg combat bi mais ki nga xam ne aussi mooy fils de Samba Diop te nekk école de lutte donc bu Samba Diop bu jaxaaw donc moom it dafa war a bëre ak ki nga xam ne tey jii moom moo nekk tey jii euh, ci écurie kaay baax donc moom it ñu war tëgg combat muy combat bu mag a mag a mag arobase arobase moomu donc moom laa waroon a tëgg daaw far yàlla def loolu ñëw mu nekkoon drapeau boo xam ne Habib Niang lañ ko jagloon suma xarit muy un homme di nit koo xam ne moom moo yoroon mouvement bu mag bi nga xam ne moom moo nekkoon mouvement boobu mu yoroon nekk Sénégal di ko def di def social mag ba léegi nag mu jël mouvement bi nag sayal ko ci biir APR moom nag moom laa war a delluwaat njukkal parce que at mu jot damay tëgg drapeau donc may wax Habib ñaa daal vraiment moom it ak waa Thiès yëpp nañu préparé wu te xam ne drapeau bi dina ñëw nag drapeau Cheikh Issa Sall ñu war koo defee ji à Mbour su ma fa jógee dinaa dem ci Ousmane Noël Dieng ak Kaolack ba pare aussi dinaa dem Kolda aussi ren bu soobee yàlla dem Tamba dem ci Ahmed Fall Baraya à Saint-Louis ñëw ci maire Moustapha Diop à Louga ba pare aussi tamit Thiès nag du ma ko fàtte parce que léegi damay dem ñaari journée génn dellusiwaat benn journée. looloo tax ku mel ni Yves Lamine Ciss dama koy tëggal drapeau aussi à Thiès donc bu sooba yàlla daal ren bëgg nañ def set journée ba huit daal bu sooba yàlla waaw. léegi fi may jaxale ak yow ku ne xam ne Gaston Mbengue yéen a bokk làmb ji defe naane ne su ma jumul sa mag la di sa xarit mu tëgg la 4 avril ëmm seen lac de guerre Gaston loo koy wax ak bés boobu loo ci euh, ban appel nga ci lancer sénégalais yi. appel bi ma ci wax mooy au départ félicité waat Gaston ci retour bi mu def parce que Gaston dellu si waatam nii yokkaat làmb kanam. te nit ki nag euh, vraiment aussi àdduna nit ki lu ko yàlla may danga ko koy nungul Gaston est un grand monsieur nit la koo xam ne man référence la ci man parce que ku xool ci moom di nga xam ne vraiment daal nit ku baax la et puis nit la koo xam ne vraiment ku bëgg aussi di gagner sa c'est un gagneur donc lii nga xam ne tëgg na ko tey jii muy Lac de Guiers ak Eumeu Sène ma lay déglu say commentaire bu baax combat boo xam ne sa d'ailleurs koo pronostiqué rek da ngaa dëgër fi mais waaye ma man cinquante cinquante laay joxe mais bu mag ba dëgg tamit mooy Modou Anta bu Thiès ak Diène Kaïré Thiès gépp préparé nañu pour gunge moo du Anta pour ñëw ci combat boobu donc Gaston dama koy ñaanal yàlla mu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm Gaston lu mu lu mu lu mu lu mu wàqi rek ñun dañ koy jéem a suul parce que loolu mooy yóbbu làmb kanam Pape Abdou Fall gis nga mi ngi xaar moom it combat bi nga xam ne mooy Siteu Papa Sow donc di la wax ni vraiment daal combat yi bari nañu ren ci loo xam ne daal vraiment xam naa ni làmb ubbeeku na te dina neex donc Sidi Diakhaté nag incha allah dina fas yéene def tuuru Sénégal vraiment pour def ay gala yu mag Babacar ma lay xamalaat ni la le 10 avril. ci euh, eh, hippodrome El Hadj ma koddu ci diggante ki nga xam ni moom mooy Safi Dieng ak euh, Ousmane Gandigal donc àllarba bii le 31 ñu fas yéene face à face bi Thiès may wax ne Equivox nag ak yow. dama bëgg ngeen ñëw nag vraiment pour ñu àndaat nag defaat lépp daal mu jàll mu sooba yàlla ci suñu partenaire vraiment maa ngi lay féliciter encore une fois bi Equivox vraiment ñëw nañu au moment opportun mais ñu ngi def liggéey bu am solo daal lépp mi ngi fës vraiment merci beaucoup Babacar jërëjëf